pour bu ñu tenir Sénégal discours boobu dafa am première partie déconstruire et deuxième partie proposer lan la ñu déconstruire mooy fàttali nañu Sénégalais yi Macky Sall depuis fukki at ak benn mi ngi ci bopp Sénégal lan mooy bilan Macky Sall bu ñu mën a teg mooy dóore tëje complot pour liquider des gens joxe ay instruction ñu rey ay nit ci ay manifestation lan mooy bilan Macky sal mooy yàq justice bi yaxeet ba tey amul benn sénégalais bu naw justice Sénégal lan mooy bilan Macky Sall mooy dund gi cher na ba sénégalais yi fi mu ne nii sonn nañu sonn boo xam ne kenn mënu ko wax du doon jar fukk tey mu ngay jar ñaar fukk wala ñaar fukk ak juróom lan mooy bilan sénégalais Macky Sall di mooy mooy faju jafe na ci réew mi faju jafe na ci réew mi non seulement cher na mais jafe na ci réew mi lan mooy bilan sénégalais ma Macky Sall bi moos mooy njàng mi sooxe na ci anam goo xam ne maar d'Italie lan mooy bilan Macky Sall mooy liggéey amul ci réew mi rawatina ndaw ñi chômage endémique ñiy génn chaque année ci marché du travail moins d'un dixième ñoom ñoo mën a am insertion pour am liggéey ñi ci des ñëpp suñu dawalul Jakarta ñi nga toog ci grand place lan mooy bilan Macky Sall mooy li ñu yàlla wërsëgale ci ay ressources ay richesse nga xam ne moom la ñu waroon nag jàpp ndax yàlla bu la tàccoo comme ni ñu koy waxee nga sàggan ba keneen ñëw fecc yàlla jox ñu pétrole jox ñu gaz jox ñu zircon jox ñu phosphate jox ñu géej goo xam ne lu tee nga ji Macky Sall jël yëpp jaay ko tubaab bi ba tey jii ay 10 pour cent la ñu am en termes de part ba pare ci répartition euh, production yi lañ cey am lu néew la mënoon naa kon ne di lim waaye lii lenn rek la waaye li ci gën a garaaw mooy lan mooy bilan Macky Sall mooy li la première richesse du Sénégal que première richesse du Sénégal du or du zircon du pétrole du gaz ay réew am nañ ko avant ñu kii biir Afrique te tey Sénégal leen gën a avancé lan mooy différence bi mooy jàmm ji ñu am paix social ak cohésion social kenn mosu fee waxu xeet kenn mosu fee waxu waxu diine kenn mosu fee féewale ay région ñeenti pré ñetti président jaar nañ ci balaa Macky Sall kenn mosul dégg débat yooyu léegi la ñuy doog a dégg débat yooyu kon loolu mooy bilan Macky Sall te noonu lañ ko présenté Sénégal loolu lañ ne il faut mu dañ